nañu yàlla jéggal tomb bi ñuy fàttalante bokk yi tey nopp dafa dalooti euh, jamono daa toll ci wax foo xam ne moom la mag ñi daan wax ne bu boroom kër di waxtaan ci am péncam nga xam ne moom moom pénc bi moom kër yu bari ci dëkk bi ñu noonu diw de mi ngi toll fi wax neexe léegi fi wax neexe ci borom kër mooy suy wax ba yàgg jigéen la ca tonet ne nangam ñu ne ko mu ne ko loolu nag mënoo koo xam ndax boobu ñëwagoo ci kër gi su ko ne waxee ñu ne ko boobu juddoogoo kon ku ko fekke woon lu ko nu ko nu mu ko neexee mën na ko waxee noonu moom rek moo fa nekkoon kon gannaaw boobu soxna ñëwagu fi ba doom di am kon soxna mënu caa doon seere ndax ñëwagutoon waaye bu soxna ñëwagut butit doom mënta ñëw bu fekkee jaar na ci yoon bokk yi laaj nañ kenn ne ko diw ak yàlla koo ci gën a sopp mu ne gag na xamut ku ci gën a sopp tontu na kon moom diw la na jàkk ne moo ko moom la gën a sopp ci yàlla yàlla nu yàlla musal ci boobu pas-pas bokk yi cofeel bu jaam di am di ko jëmale ci suñu borom subhanahu wa taala mooy kenn bi gën a dëgër ci tawxid mu ci gën a dëgër waaye bu nit ki dee tënku ci ndigali suñu borom yi it cofeel gaa koy jiitu waaye way deng ci mbirit kenn mënu la yëngal lu toll ne tarfata nit cofeel gu nit ki am ci suñu borom moo ko koy may kon kuy dund nekk ci keppaar goo xam ne cofeel gu war a dox diggante jàmm bi ak yàlla nekku fa na seete geneen ker waaye loolu ker bu ñu doon ker ker suba dong mu lay doon bu ne faa jàng léegi dem dem bàyyi ko fa waaye li wér te mooy cofeel suñu borom mooy keroog ngoon lu mu gën a yàgg muy gën di yaatu ba yàgg guddi far ñëw lëm moo tax làmmiñ dañ naan du lekk borom du lekk moroom ja te ñorul axakay waaye mën naa lekk borom te fekk togguñ borom sax ba muy ñëw bokk yi coofeel diggante jàmm bi ak boromam kum ne ci moom nit ñi mën nañ ko xam day sawar lool ci jaamu yàlla te day neex ci moom du ci lekkante dara lu ci ne daf koy jox lam laaj ci waxtu lépp muur la ne ni yow li nga mën a àtt xamoo xolam lu ca nekk waaye lii suñu borom santaane moom neex na ko bi mu koy def ndax teelu na ko tax na ko bay ay yitteel kon ku cofeel suñu borom ne ci moom day sawar si jaamu yàlla ndax jaamu yàlla day neex ci moom waaye it jaamu yàlla mooy doon wéttalam mooy doon wéttalam fépp tey day daal di mos su boobaa cafka gi nga xam ne moo nekk ci gëm yàlla dëgg-dëgg te شاف كده شيء جم يلا در در ملوني يوم تبي صلى الله عليه وسلم ما هو خنينا نتني مي يوم خم نكون نتيجة وماسنا شاف كده جم يلا ما يلا أكو بينتم دندل وندل waye ñom la yalla dendal ci alquran atiyu allah wa atiyu rasul yoonte bi mo ne kep ko digganteem ak yàlla ak cofeel da caa dox goo xam ne mu mutu ca boppam suñ koy tudd sax léegi tey nga gis ay rongoñam ba yàgg ñu tudd yonent bi nga gis ay rongoñam ak cofeel bu metti nee na kum ne ci moom mos na cafka gëm yàlla te cafka la boo xam ne naan guy dolli aw mar la ku ko xas ba ba mos dutu bëgg dutu ko bëgg a yàppi waaye nag cofeel suñu diggante suñu borom ki dàq ñaan gën a xam ñëpp nu ñuy ñaane dàq koo jaamu mooy sallallahu alayhi wa sallam daanaka faral di ñaan naan yàlla yàlla na nga ma may ma di la gën a bëgg di gën a bëgg ku la bëgg bay bëgg koo xam ne dala bëgg ma bëggaale ko ci bëgg gi ma la bëgg te nga may mayet may bëgg lépp loo xam ne ku ko def dana la gën a jege أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك waaye bokk yi ki dem ba naan yokkaat na léegi ci doxale ak cofeel digganteem ak boroomam bay tànn keneen ci jaami suñu boroom bokk yi kurul yàlla ab jaamam la lu mu baax baax yàllaa ko bindit kooku nga xam ne xolam yokkat la ndax lan nee naay la ko diw defal diw lu mu koy def fu mu ko jële moo ne yàlla wéet naa ak moom foo xam ne diw fekke ko dana wéet ak moom foo xam ne diw du ko fekk te nit ki nag ab xolam bi cofeel di nekk ku ko yàgg a dana ko ca dugal waaye nag taraanga bi suñu borom jox nit nit ni moom mënu ko ko jox ba mu ba mu koy wottee cofeelu suñu borom bi yàlla nañu ci yàlla musal ndax suñu borom ne nit terale ba nga di ko yéem ba sama xel di daj loola ci li fi suñu borom indi ko jëlee wa ma bikum min ni'matin fa min allah da ko jaarale ci kooku rek moo tax ba nit ko ñëwee ci kër suñ bu mag bi di yor ba dugg ci kees koo xam ne ña fay dugg du bari mu dugg ci néeg ba fekk lu ñu fa denc mu ne ca coppet dugal ci jibaam sëriñ bi taxaw xool ko ba mu jël ba def ci jibaam mu taseeg moom mu bëgg ko faa delloo mu ne ko déedéet sa wërsëg da ngaa yàkkamti waaye boo boo ko laajoon mu ñu jox xéewal yooyu suñu borom wax nag ne lu koy am lu tuuti la ca ak fu mu ko mën a jaarale ñëw am am nga fu mu ko mën a jógee saa suñ xoolee gis ko xéewal yooyu daf ñoo tiim nekk ci wet gu nekk ci suñ ci wet yi ñu yi seq noonu moo xam guddi la wala bëccëg moo xam koo ko yëg ko wala mu feeñal ko waaye nag su dee dikk su dee li ñëw guddi su bëccëgee ba ca sant yàlla moom yàlla ñu xam walla mu wax ko ci kaw ñu dégg yomb naa la yàlla ndax yàlla rek moo am murut jeexal mooy joxe te loolu la may mën a jox ba nga di ko yéem ba di ko wottee suñu borom yàlla ñu ci yàlla musal ñëw na ci kaw suuf indaaliwul dara dana fi jóge te du yóbbu dara kuy ñëw day bank ay loxoom lañ wax ñii for ay xale ñoo koy wax ñii for ñii ñii raw yi nee li ci ëpp day bank loxo yi te soo ko tàllalee mun a yoruma dara maa ngi fi suy demit bu fekkee ba mu fay bàyyi koo fekk aw nit fekkee nañ ko dañuy tàllalaat loxo ya mu ne mi ngi ne yorub dara mi ngi dem kon diggante boobu mënu fi am man-man boo xam ne day fàttaloo nit boroom diggante ak boroom bam di ko sopp di ko tànn ci bi ñu ko tànnaloo diggante kooku ak yàlla bokk yi biñ amagut yàlla moo fi nekkoon moo ñu amal kookee muy wax yëgutoon ne danañ am lu wér la léeg ñu ne diw xanaa yëgoon ne diw laa wéré di mu ne yëguma ko woon dara ump ci suñu borom man nag koo teg waaye suñu boroom it moom képp la ak mayam sëmbartalu si ñun ñëpp da képp kenn ku kenn ku gis doon sa morom wa asbaga aleykum niamahu zahiratan wa batina ku ne yaa ngi yëg loo xam ne sa morom di yëg leneen te yëgoowu leen te xamu leen ne ki leen koy yëgloo kenn kenn bis bu set nit am lu mu foogutoon mën na koo fob ci nit dem mu ne ko nekku fi ولا فك ما جاخ كو ديغات واي يالا جوخ يالا سيتو تي ناج ناج تيال ناج غودينا تي غوم لام من نكو راج و ان تعود نعمه الله لا تحصوها واي نك انا نيت دي توغي با ياغ مو نان ديو موكو غنال يالا واخ مون يالا دي موي يور يور بوكو ديغي موي واخ نان لاكو نه فوخ جوخ لاكو تخمو فم جيغي تي كاد يوي مو واخ دوكو خاج دوتا يالا ديما جوخ تي moom la muy def ko si néew jàpp ne tam koy séqal su ko defalatut du ko jox cër ba mu ko jox ba mu koy wortee suñu borom man naa am buggu téere dutu ko dutu ko gis dañ koy téye bu ñëwee nit danay def fi barab di def di def di ba fu mu ñëwee ñépp xàmmee ko yóbbu ko fa mu bëgg a dem waaye loolu dañ ko ko fayee rek ci li muy def buy bàyyi laa di gis pay gi léegi yàlla nag doxewut noonu nit mën na koo teg ci kawam lu nekk di ko yàq lu ne di ko joxañe lu ne waaye du tayam di ko jox ni muy joxe ñëpp ñi koy ñi koy jaamu kon boog ñi nga xam ne seenu sopp su nga borom dëggu na ci ñoom dara du leen jaral dara ndax xam nañ lu ne ci kaw suuf si suuf laay mujj soppaliku kon boog loo xam ne mu ngi ci kaw suuf ak nu mën a toll suuf lay mujj doon jërut beccee ak jëmm suñu borom ñi nga xam ne fu fu lu lu jàll moo ko jàll koo xam ne kii nag ak soppam suñu borom dëggu la dëggu na ci moom day soppaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp am njàngaleem te teg ca tànkam loolu yomb na xam ndax yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jóg jëm si si moom duy teggin kenn ku ne mën ngaa xam kilifa gum fonk waaye léeg-léeg bi téléphone xewee danaa ko nu may def ba gis ko donte xam na fa kilifa nga nekk naka kooku xam waaye dugg ci kër kilifa ga rek ñaaj wutali fa mu nekk ku ko def ñu téye ko gannaaw mu sa ñëwee boobu boobu protocole bu rëy la sakkantum ak suñu borom moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñëw naan la sopp naa suñu borom sopp naa ko sopp naa ko xoolal lu mu def ak sam dàngale su fekkee daa sopp te xamagul nee ko tegal sa tànk fii ma ko teg soo ko teggiwut nii nga sopp suñu borom suñu borom dana la geesu bis rek ne la mën ñi dama laa sopp sa affaire baax in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum moo tax jiw la gën a sopp ci sunu borom léeg-léeg sax muy nax diw te diw mën na koo xam waaye baat yooyu moo neex ci moom rek loolu moo koy wutale suñu borom suñu borom am luy neex ci moom ak naqari na diw te bu ñëw fi diw rek lay waaj waajtaay ci diw bu fa jógee mel na melaatoon wérul waaye am na ñu sopp nañ suñu borom it sopp diw mu ne da ko dégg. waaye sopp suñu borom mu ne am li ko tudd waaye yëguñu maanaam baat bi am lu ñu tudd xajibullaa waaye yëguñu ko waaye danga gis ñu ko sopp sax naan man maay sopp diw te diw moom ndax daf demoon rek ba mu ñëwagul yàllaa ngi fi woon bii mu fi nekkee lu man yàllaa ko ko manal bis day ñëw du man dara yàlla wéy ak manaam gi euh, bokk yi yàlla moo nu bind te fekk na ñi ñu sopp ñëpp kenn yëgu ko ci day xëy bis rek ñu ne ko diw garen am na mu ne ban bis la kii laaj ban bis la nag bari lu mu ci xamul kon ñu ne ko bis sàngam la mu ne lu mu am góor la am jigéen la kooko yi kon xamul gannaaw nag noonu bis ba te am nañu ko xam ñu dekk ci kër gi mën ko xam moom xamagu ko dañ koy wax góor la mom jigen am ñu ko jëk a xam dana bari lool lu mu xam ci mom moom la suñu borom di wax ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa jaala lakum alsama wal absara wal afidata laalakum tashkurun moo ne li nit di jëkk def bu gënee àdduna kenn raxu ci suñu borom muy day nan but rek ñu for ko defar ko ba ma ni sa jaxasoog moom daal di koo jox wenn mu daal di koy muuc ku koy xamal ndax kii mu dema dem ba mënal boppam ne moom laa soppoon moo ko xamal déedéet ki ko ko xamal moo ko xamalal kooku rek subhanahu ma fi nekkoon démb mu yàgg mu bàyyil boppam ku ko xamal boo lekkee lu jàll danga war a bàyyi yàlla kenn rax ko ci moo ne ku tollu foofu bu defee yaramu neen kenn du ko gis kenn du xool yaramu neenam muy ab liir yàllaa ko waddu yàllaa ci de yàlla loolu ko yàllaa ci nekk ñu bàyyee ko yàlla ba léegi si kenn du xool aw yaramam walla gis ko tekkiwul dara waaye bokk yi li gën a yomb ci xam ne suñu boroom du kenn te kenn du moom gis ngelaw lii nga xam ne moom la ñuy nooy di ko jël di ko delloowaat di ci dund bala nga woon a xam ne suñu borom du kenn kenn du moom ñu teg ko ci ay yoxo léegi tey bu dee teew bu jëm si la ci yow dañ xeex yow fatt ko wala ñu indil facture boo xam doo ko mën a fay ñu dagg ko waaye ndox mi ñu jëfandikoo it jundoon nañ fi karo ne ko ñu naan société bi nga xam ne moo yor ndox mi déedéet dañ naan société bi nga xam ne day root di jaay ndox yi mu doon dal biig am na ñoo xam ne xamuñ kañ la ko tàmbali تمن غلينا صب صب خلاط ووتل اك سوني بروم ووتل كو سوني بروم نمام لا غنا خم فم جيغي خم سوول جيغي خم بنك لا دوخ جيغي خم جاتا في سوني عنده مفاتيح مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب موي نخل ولا يابس الا في كتاب مبين واي بوكي فاكتيرو دي دغ دي دغ لو بغي دغ دغ باي دغ لو بغوتو دغ بو فكونت ني كينن مو يوري كيرغو ديكوي جاي ام لاني ام لاني دي وخلو دو بكينن دغر كون دا دي كوبي dégg googee dootoo dégg dara waaye dara kenn raxu ci suñu borom mu ne gët yi ñuy xoole itam lañ léeg-léeg nit ay gëtam naqari ñu jaay ko lu muy xoole waaye day dem a dem ba yàgg dootu ko mën a gis lool kak ko joxoon moo ko nanguwaat wala ñu xool ba yàgg ñu ne mënatuñ ci dara moo ne léeg-léeg nit gane wala adduna ñàkk a wax di liyaar donte liyaar ci wax la nit mën na ko xam ku amul xel مون لا نيوخ لولا الاشاره لولا الاشاره لفهم الحم... لفهم الحمار كلامه واي لا ليك نيت دي واخ واخ ايتام بو فكون تاني واخ سي بوبام دو تير بوبام جوخ كو كين امنا لو نيت واخ كوبي بوم كو دون واخ لا دوتو واخ ناخ سا بو واخي واخ تاج تاج تاج بي گيدو لي سي واخ سبحانه وتعالى نلاك ci ak suñu borom koo ci gën a bëgg mu tànn kenn ku dul suñu borom waaye ay yox ci la bokk ay tànk ci la bokk moo leen cër yàlla jox nit nga xam ne mënees na koo toppandoo di ko wutal nit ki mu di ko jëfandikoo waaye ay bët bokku ci aw làmmiñ bokk ci ak dégg bokk ci yooyu moom li yàlla sedd nit ci yaramu nit ki boolewu ko ca kuy dégg ba yàgg mu mënut dégg mu tëx dañ naan yàllaa ci des la seen soxna waxoon dem ci fajukaay yi newoon Dakar yu yàgg ya boobu tubaab yaa ngi fi yóbbu fa kum yaakaar yaakaar leen ca lool ña a wax ak moom di ay nit ñu ñëw ne ko soxna si kiir yàllaa ci des mu ne leen ndeketi seen jaagar jaagar ji dem ak dikk beeg nangal bi yëpp ndek yàlla képp ngeen yaakaar ni man nanga mu di indi foofee saa bu dee ba amatul pexe amatul la ñuy soog a dem ci yàlla ndax yàlla dana ko nangu yàlla du fecc li dara di duy ba yàgg mu tëye fees ñu ne yàllaa ci des mu feesal ko déedéet moom kay fa dara nekkul nga koy naan yaa fa mu fees ko dell waaye nag bokk yi lu njuumte rëy rëy wàññiku weesuwut am na ci alxuraan ñu ngi suñu borom nettali ne waxuñu di ko tànn dem tànn keneen di ko bàyyee moom loolu loolu yomb yomb ci ku ne yàlla moom amul far wala yi ñuy bañ ku ko askanal suñu borom ñu askanal ko yépp ne moom la waaye yàlla nee na woon ñooñu weesu ay wax waaye ay jëf suñu demee ba wëlbatikuwaat ne yàlla kat dañoo jëw moon jéggal mu jéggal leen qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kon pas pas bu tàmbalee yàqu diw ak yàlla ku la gënal mu ne gag na gag mooy xamul kum ci tànn tànn na ba noppi ndax daa defeen yàlla nekku fi diw fi nekk te bu tànnee yàlla diw duuti ko jariñ lam ko doon jariñ wala ña ko doon ngir diw ñoom ñëpp ñu andi caaxaan du duñ ko amal njariñ yàlla nu yàlla dugal ci ñaanu yonent boobu mu doon ñaan sallallahu alayhi wa naan yàlla yàlla nag ma may bis bu set ma dala gën a sopp di sopp bay a sopp ku la sopp di sopp coofeel gay dolli ko ci lépp loo xam ne ku ko def nga sopp ko yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin